Aí. Waly ñoo ngi leen nuyu. ñoo ngi lay jaajëfal. mais yaa ngi waajal. mais Waly. jaajëf. Ça va, ça va bien Comment vas-tu Tu vas bien Ça va et toi Ça va bien, yaa ngi mais Wally mu ngi dox waaye le 31 lan lañ nar a xaar fii may ñu rek ndax son yu bees yi dina génn di nga ko may sénégalais yi waaw wala déet yaboo ma sénégalais yi noonu ah doy na waar rek doy na waar rek yaboo ma sénégalais yi ba dinañu woo le 31 vraiment préparé wu ma. te son yu bees du ñëw ah. ñu gis nga dem Gambie. ah toj ko waaw tey jii. Tamba mu fees dell Tamba mu fees dell lan la nit ñi mën a xaat wit de temps en temps ñëw ñu fetu. Hmm. ñëw ñu fetu. waaw na na faramare ñu génn teel a génn ñu teel a tàmbale hmm. répertoire yi mën a dox incha allah. incha hmm. waa Gambie woo ñëpp. gars yi dagg vol bi yëpp maa ngi leen di woo ñu ñëw nañ ñu ñëw ñu teel a. ñu ngi waaj dem Diourbel waaw. mais gars yi nga may nga ñamal nit ñi benn live benn benn live est que tey jii le 31 gars yi mën mën nañoo xaar ay live yëpp. leer na wax na ko le 31 décembre. Faramareen kontaan. incha allah. looy waajal waa Diourbel. tàmbalewu ma ko Kalkom ñu ko njëkk tàmbale. waaw ah. con conteneur la ñu wàccee conteneur. bu soobee yàlla. léegi léegi ñu nii. Ah, waaw wax naa ko nee naa. Kalkom euh, euh, ñoo njëkk a ñoo njëkk aj baar bi. Euh, première en Afrique. ak euh, bon ñoom nag sama collaboration ñu ngi dafa yàgg. depuis sama papa Goro Ngom la. ñabal gi nag yàquñu ko ñu ngi koy doxal. ah, ah. li ma sañ def ci quelque moom ñëw ma ko def dama ko am amam sañ-sañ daal ci ñëw. Ah. su ma nekkee def leen li ma sax. waaw ah, parce que man doom laa ci kër gi. alors ñoom ñoo njëkk aj baar bi. indi fi la xamante ni pour une première en donc euh, c'est c'est à découvrir incha allah le 31 décembre. incha allah conteneur la gars yi wàccee. ah. mais waa lay wax jeunesse bi. ñu gis ne sa album da nga mel ni ku xëj jagleel jeunesse bi. loolu la ñu waaj loolu la ñu wax 31 décembre ak nouvelle an bi ñu jëm. waaw maa ngi leen di ñaanal jàmm di leen wax ni vraiment euh, euh, seen doom seen xarit seen waykat ah mu ngi leen di woo le 31 ngeen ñëw ñu baalu ñu feetu ah donc teel a génn ah amuñu chance bi yoon. Euh, am yeneen espace fii rek moo solution bi ah dernière solution bi parce que Cissesse ku ne xam ne yi dafa am foire te foire bi le 31 lay jeex euh, le Esplanade bi dafa am ñeneen ñu ko jëloon muy des rappeurs jël nañ ko yaa un an ci ginnaaw donc mooy loolu amuñu beneen espace. ñu mën a dem fii rek mën a ñëw te comme bëgguma woon bàyyi ba 31 a leen di làkk ay daadaa il fallait ma débrouiller wu jël fii donc nañ teel a génn incha allah nañ teel a génn incha allah waaw ma ngeen may benn wala ah, waaw ñun ñu saal nañu ci grand théâtre saal nañu suñu grand théâtre

kenn ko ah ay sama saa ñu ngi ko tàgg ko. garaaw eh garaaw. waaw ah. Badiane. kale ajaam ah. ngir yàlla tamit kàpp yow tamit Fall waaw mam se nga xaar yàlla na xaddi sëñ mama Baye Fall nga jàmm rek ngay ma nu mu tudd arab maa ngi lay Serigne Issa Serigne Issa Alors, donc, il y a la ah discuter avec eux ba ngeen sant rek ah élection yi nga xam ne jërë ngeen ne xaar sax. oui. Waly ñoo ngi lay nuyu. ñoo ngi lay jaajëfal mais yaa ngi waajal. mais Waly. jaajëf. Ça va, ça va bien Comment vas-tu Tu vas bien Ça va et toi Ça va bien, yaa ngi ko yaa ngi noos mais Wally ñu ngi dox waaye le 31 lan lañ nar a xaar fii may ñu rek ndax son yu bees yi dina génn di nga ko may sénégalais yi waaw wala déet yaboo ma sénégalais yi noonu ah doy na waar rek doy na waar rek yaboo ma sénégalais yi ba dinañu woo le 31 vraiment préparé wu ko. te son yu bees du ñëw ah. ñu gis nga dem Gambie. ah toj ko waaw tey jii. Tamba mu fees dell Tamba mu fees dell lan la nit ñi mën a xaar fii ba 30 décembre. ñëw ñu fetu ñëw ñu fet waaw na na faramare ñu génn teel a génn ñu teel a tàmbale mm. répertoire yi mën a dox incha mm. Mm. woo ñëpp. gars yi dagg vol bi yëpp maa ngi leen di woo ñu ñëw nañ ñu ñëw ñu teel a. ñu ngi waaj dem Diourbel. waaw mais nga ñamal nit ñi benn live benn benn live est-ce que tey jii le 31 gars yi mën mën nañoo ay live yëpp. leer na wax na ko le 31 décembre. Faramareen yi dinañ kontaan. incha allah waaw. looy waajal waa Diourbel. tàmbalewu tàmbalewu ma ko Kalkom ah. ñu waaw con bu soobee yàlla. léegi léegi ñu ngi def incha te comme ñoo njëkk a tàmbale ñoo njëkk aj baar bi donc euh, c'est une première en Afrique donc euh, bon ñoom nag sama collaboration ak ñoom dafa yàgg. depuis sama papa Goro Ngom la. njaboot gi nag yàquñu ko ñu ngi koy doxal. ah li ma sañ def ci quelque moom ñeewu ma ko def dama ko am amam sañ-sañ daal ci ñëw. Ah, su ma nekkee def leen li ma sax. waaw ah, parce que man doom laa ci kër gi. alors ñoom ñoo njëkk aj baar bi indi fi loo xamante ni pour une première en Afrique. donc euh, c'est c'est à découvrir incha allah le 31 décembre. incha allah conteneur la gars yi wàccee. ah. mais waa lay wax jeunesse bi ñu gis ne sa album da nga mel ni ku ko jagleel jeunesse bi. loolu la ñu waay loolu la ñu wax 31 décembre ak nouvelle an bi ñu jëm. waaw maa ngi leen di ñaanal jàmm di leen wax ni vraiment seen doom seen xarit seen waykat ah mu ngi leen di woo le 31 ngeen ñëw ñu baalu ñu feetu ah donc teel a génn ah amuñu chance bi yoon. am yeneen espace fii rek solution bi ah dernière solution bi parce que si ku ne xam na yi dafa am foire te foire bi le 31 lay jeex euh, le Esplanade bi dafa am ñeneen ñu ko jëloon muy des rappeurs jël nañ ko yaa un ci ginnaaw donc mooy loolu amuñu beneen espace. ñu mën a dem fii rek lañ mën a ñëw te comme bëgguma woon bàyyi ba 31 yi ma leen di làkk ay dada il fallait ma débrouiller wu jël fii donc nañ teel a génn incha allah nañ teel a génn incha allah incha allah waaw ma nga ma may benn awali ah, waaw ñun ñu sagal ñu ci grand théâtre sagal ñu suñu grand théâtre am ñank jaajëf Faye waaw waaw ñoom waa ñank la merci beaucoup jaajëf Faye c'est la famille groupe dama nuyul maman Diop ah nuyul ma fii maman Diop ah c'est ma soeur dala bëgg. bonjour bonjour mooy. waaw. waaw. Thank you. ngir yàlla tamit carte yow tamit wax dëgg taxaw ma jëlaw yow Fall nga ma di waaw du moom seen Fall nga xaar yàlla na xaar di sëriñ Mama Baye Fall nga kam rek ngay man jam Arab maa ngi lay siyaare Serigne Issa Serigne Issa Alors, donc, il y a pas mal de Ha diskute avec eux, bugün sanki de. Her şey yapın, görmeye kalsa.